mbokkee salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant ñu fas yéene am na ay ndaw nag nga xamante ni rek ay doomi réew mi la ñu ñu boolu ànd nekk benn ngir nag waxtaan sottante ay xalaat ngir nga mën a dëgëral euh, mbirum démocratie si suñu réew Louise Bidza moo ñu fa toogaloon aram ndaw moo ko tënkal ñu déglu ko. Sénégal téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi ay ndaw lañu ndaw yu bëgg mënal seen bopp nag ngir dugal seen loxo ci doxalinu réew mi mbootaayu ndaw yu bari ñoom daal di dajaloo fii muy ndajeem weccante xalaat ngir yokk démocratie réew mi. ne ni 70 pour euh, population bi ndaw la lépp loo xam ne ni war nañ ko fi tabax mu nekk politique publique mooy maanaam ci wàllu euh, santé maanaam éducation ak emploi war nañ saytu xool lan mooy xalaatu ndaw ñi ak fan la ndaw ñi war a toog pour wax seen seen défendre seen bopp et euh, loolu bu ñu xoolee tey. li fi génn si xalaat buñ ko toppee dina am lu mu jur loo xam ne dina njëriñ askan wi. tëralinu waxtaan wi tax ba bépp ndaw fépp foo jóge ak fépp foo mën a féetee daal di si mën a sànni sa kàddu. dañ ne démocratie surtout ci biir réew pour mu mën a jëm ci kanam il faut que ndaw yi mën a taxaw ndaw yi taxaw nag moom mooy ñu xam d'abord ñoom seen wareef mais ñu xam surtout taxawaay bi ñu si war a am te taxawaay bi ñu si war a am dafa war a am nekk taxawaay boo xam ni dafa war a dëggu pour mu dëggu nag il faut que jeunes yi xam d'abord ñoom ban cër lañu am ci démocratie. ñaax nit yi ci fonk sa réew ak jox ko gëddam ba mat sa kë daal di ñeel lool ndaw yi. mooy déjà déglu tous les leaders politiques ñoo xam ne euh, bëgg nañ nekk président demain lan la ñuy proposer parce qu'il ne faut pas ñu ñuy utiliser il faut pas ñu utiliser jeunesse bi et puis wala artistes pour ñu leen di wokkal wala ñu nekk seen porte-parole wala seen caution duma que nekk caution kenn ok à partir de maintenant man la bëgg mooy déglu ñëpp ku ñëw dinaa la déglu parce qu'aujourd'hui aussi il faut ñu am conscience politique il faut ñu am conscience civique conscience patriotique conscience nationaliste et panafricaine. conseil national ndaw yi ne mbëbëtam mooy di waxal ñi mënul wax ñu bëgg nag dugal seen loxo lool ci tàggat ndaw yi tàggat bu jëm rekk ci yokk civisme xale yi. jërëjëf Aram Ndao ci wàllu jokkalante ak lëkkaloo ci ay euh, dëkk moo nag am ci diggante ville bu Xombal ak bu Paam ci Itali xaatim nañu ak déggooloon ko ci wàllu wér-gu-yaram muy loo nga xamante ne rek lu am solo la ba ñu noppee ci xaatim boob nag dem nañu nemmeeku yéen barabu liggéeykaay ñu déglu si ki nga xam ne mooy maire bu Xombal euh, di député maire Ababacar Ba ci micro Cheikh Fall tey liñ doon mandargaal maag sama xarit sama collègue bi nattangoom bi nga xam ne mooy jógee mairie Parme di maire Parme ci Italie mooy ñëw ngir d'abord um, firndeel projet boo xam ne depuis ñetti at ñu ngi koy togg mu jëm ci mbirum wérgu yaram ndax maire bi c'est vrai que santé bi dañ ko transféré mu ciy liggéey en collaboration avec les services étatiques mais maire bi aussi dafa war a bay war a garam ci loolu moo tax ñu initier benn programme boo xam ne de secours la Euh, dañuy farme ay ndaw ñu jëm ci secourir population yi ndaw yooyu ay volontaire la ñuy doon ci kaw projet boobu ci la ñu mairie de Parme di appuyer ci formation d'abord former ñu ndaw ñi ak matériel ak ambulance boo xam ne nii fépp foo xam ne nii ku lot soxla na ko ndaw yooyu mën a ñëw secourir la ba pare teg la ci ambulance yóbbu la ci faju kay bi defal la les premiers soins yóbbu la ci bërëbu fajukaay bi lolo aussi kenn mënul wax santé té mënoo wax di waajal donc muy prévention loolu motax aussi ñu jël en charge boole prévention bi associé ci école pour ñu jappalé ci mbirum environnement bi mais surtout fexe ba aussi mbiru district sanitaire bi ak institut pédiatrie sociale bi nga xam ne fa la ñuy nàndal gune yi nga xam ne dañoo lot ci mbirum seen lekk ak yooyu ñu jàppaleen ba ñu nekk ñu wër donc santé dafa nekk ci digg bi mais santé dafa bari yu bari yu ko war yoo xam ne nii bu amul wér gi yaram mënul am moo tax tey jii dañ ñëwoon di firndeel jàppale gi nga xam ne nii mairie Parme daf koy jàppale commune Xombo ngir ci projet boobu nga xam ne lañ ciy jëm ñu jël ay volontaires yoo xam ne dañuy secourir population yi. syndicalistes yu réew Mali ak yu suñu réew ñoom nag euh, daje nañu ngir nag euh, waxtu nga xam ne yëngu ci wàllu secteur ferroviaire daje nañu nag euh, ngir taxawu chemin de fer amoon nañu ak ndaje ak taskatu xibaar yi ngir xamal leen jafe-jafe yi nga xamante ne rek la ñuy dajal ci chemin de fer ci biir loolu ñu déglu ki nga xam ne coordinateur kuréelu syndicalistes yi di Omar Cissé. lii ñu état taxaw ak tàngam lu bi ñu def boobu ak léegi. li daloon euh, Air Sénégal daloon euh, ICS la bal tey mu dal ñu parce que dañu nekk si loolu ñu tuddee règlement préventif mooy suñu ëllëg nekkatul suñu loxo si ay yeneen loxo la nekk te loolu këyit yooyu ñu ko teg si taabalu président tribunal commerce bu Bamako te rapport ba expert ba lam si wax te ni loolu nga xam ni moom la tuddee concordat tey chemin de Transrail def ko jox ko ñu xool ko expert bi xool ko xayma ko ba xam ni baax na dañu baax na bi daa am lu ko waral pour mu mën a nekk li mu war a nekk mooy état seen bopp ñoo war a def la tax loola war a mën a nekk te boobaak léegi muy depuis 2007 ba fi ñu wax ak yéen bu mujj bi mujj a jël kër gi muy Vectoris ndax suñu camarades yi wax nañ ko muy Cheikh Diène bi ñu privatiser en 2003 dañ ko jox ay canadiens jaay ko beneen société bu ñu wax Savage ay américain te état Sénégal xamul ni ña fi nekkoon dem nañu jaay ko ñeneen. boobaag léegi dañ see deful dara ba ñu yóbbu ñu en règlement préventif règlement préventif nag camarade Berthe wax na ko le mois passé lay waroon joxe verdict état yi seen bopp ñoo fexe ñu reporté ko.

mën nañ ko yaakaar wala ca Mbour ñoom nag xamante ne ñoo yor hôtel yi wax nañu daal tuuma bi ñuy teg rek si seen door du dara amu ci ndax dañuy wax ne xale yu jigéen ñi leen di sàkkoo ci hôtel yi ñoom nag nee nañu loolu amu amu fa su naata nga ceen moo demoon dajat ñoom ñu déglu ku tudd Saly xalaat ay tubaab yu baw bitim réew di ñëw ci diwaan bi ku tudd Saly itam tudd ay hôtel yu bëri ya fa nekk ñu bëri kon joxoñ baaraamu tuuma hôtel yooyu lee jàpp nii dañuy faral di fat ay nit ñu jubul ñu nga xam ne dañuy faral di jëfandikoo ay ndaw loolee kon lenn amu ca loolu la ñi nga xam ni ñoom ñoo yor hôtel yi ci diwaanu Mbour bérél. Euh, mun naa ne euh, de façon affirmative ko du phénomène boo xam ne euh, lu bari la ci hôtel yi parce que formalité du ñu accomplir moo tax ñu bari duñu ñu ci hôtel yi hôtel classique. jafé jafé ñuy jankontel moy généralement ñuy ñëw ànd ak seen xale boo gisee xale bi rek di nga di nga am yaakaar ne kii euh, mineur la waaye bu ñu ñëwee naa dañu dañoo marié dañuy sëy couple la euh, daanaka amuñu benn argument pour tere leen dugg hôtel bi loolu moom beneen problème la boo xam ne parce que euh, tout simplement suñu aada dafa admettre ne mineur à partir de 15 16 ans mun nañ leen marié donc, à partir du moment d'un ko marié il a franchi l'âge de la minorité juridique donc problème boobu la ñuy jànkonte à part le ku quoi xam ne ni dalul ci hôtel bi nekk euh, ci biti amuloo fi ben soxla doo dugg ci hôtel bi. ci diwaanu sali jamono ji kurel yu bari ñu ngi taxaw temm ngir kon képp ku nga xam say at matewu ko nga baña a ci hôtel yi ba fay say itam nga baña fatu ci biir néeg ak ku nga xam ne moo la ëpp foofu yaat kon kurel yu bari ñu ngi ciy taxaw nguurug Sénégal samp kurel gu melni sapko ngir saytu karange ñi nga xam ne ñoom ñooy ci Petite Côte bi sapko ni mom taxawu gone yi lu ko ñor la. Euh, très souvent nit ñi dañuy wax hôtel sans def différence mais en réalité fi sali ñun luñ fi xam moy hôtel yi ku nekkul client bu résider ci hôtel bi mëno mënoo fa dugg donc euh, phénomène yooyu su fi amee tamit c'est pas dans les 15 hôtels vraiment répertorié et légalement installé au niveau de la station balnéaire parce que qu'il y a un verrouillage systématique pour les client ci hôtel bi logé fa c'est impossible que nga nga dépasser la réception de l'hôtel lu leer ba leer mooy mbir mi bu xewul ci hôtel yi mu ngi xew ci yeneen i kër yu nga xam ne dañu leen di loué ak itam yeneen i yi nga ne dañuy faral di dalali gan loolu lépp kon ñi nga xam ni ñoom ñooy xeex ak ndaw bëgg nañu mu dëñ foofulee loola waral kon xeex bi benn la lu ñu bëgg kañ mooy ndaw ñi nga xam ni ñoom ña mun a nekk ëllëgu réewu Sénégal te loola kon ñu ngi ko mën a jaar ci aw taw feex li ni sànni liir yi ci mbedd yi fogoon nañu jeex na ndekete tey la wàll gën a aay ñu ngi koy wayal ba ndeke ni am na benn liir bu nga xamante ne ñu ngi ko fekk fi jàkkaar lool perception municipale bu Dakar xale bi nag ku góor la yàlla dogal na nag muy xale bi nga xamante ne rek dañ ko fekk mi ngi dund ñu déglu si kii di Mamadou Yoro Bokum ci micro Moussa Mané. woo ne moom am na am na ci bébé bébé boo xam ne ñu ngi ko abandonné fii ci wetu ci benn place bu nekk en face place. protection municipale léegi léegi bu ma ñëwee j'ai trouvé mon collègue m'a expliqué comme quoi que y a y a un dépassant moo ne ko am na am na benn bébé bu nekk fii des hommes jël na suyotment am daal di ko récupérer parce que dafa dafa kii euh, le bébé dafa sol yére donc nii quoi léegi ñun euh, li ñu njëkk def mooy rendre compte comme comme dans toute enquête rendre compte à nos autorités te euh, après ñu ñu tijji enquête léegi ci enquête boobu fi mu nekk nii maa ngi xaar euh, euh, l'arrivée des des sapeurs parce que parce bu may ñëw lan leen woo léegi suñu ñëwee dañ leen di jéem a dañ koy jël hôpital maintenant on va dañ koy mettre en examen à l'issue de ça sûrement ñoom au niveau de la crèche dañ koy garder en examen pendant longtemps ensuite su demee ba xam ba xaw a dëgg mën mën ko fi dans les kii confier ko euh, garderie d'enfants yi bi nga xam ne nekkoon directeur bu stade Demba Diop wàcc na liggéey muy Paul Ndong tey ji nag ci suba ci hôpital bu Fann dañ ko doon ñaanale ak ñi nga xamante ne rek képp nga xamante ne rek da nga yëngu ci wàllu tàggat yaram teewoon nga fa ak jaww nga xam ne mu dénk wàllu tàggat yaram di Faustin Diatta ak président fédération sénégalaise bu football di maître Augustin Senghor ñoom it indi nañu ay euh, seede yu rafet euh, ci ki nga xamante ne rek euh, moo fi bàyyi ko ki nga xam ne suñu naatu nga Abdoulaye Fofana Seck indi nañ ci ay leeral ci xew-xew bu tiis boobu ñu déglu ko. tey jii ci hôpital Fann mbooloo mu takku teew na fa ngir mottali kóllëre ak Paul Ndong mi nga xam ne dafa génn àdduna te nekkoon directeur u dem Demba Diop. di ñaanal donc euh, suuf son boo xam ne daal suuf fa jot wane foofu la juddoo te bu fa nag fonk fa toujours dafa may ne damay dem fa jot tem tem mu dem fa delluwaat loolu mooy wone nekk séeréer bu baax la. site bu pur la site bu bëgg mbokkam la mais cadre bu baax tamit pour ministère bi amoon na yaakaar ci moom parce que day liggéey waxtu bu ne mu ngi stade ba mu ngi daw di ñëw di dem di dikk loolu yëpp mooy wane ne rek dëgg la maa ko nommé woon dafa bëggoon tamit wane ne que confiance amoon ci moom daf ko wone pour mu mun a gën ko mais lii dogal yàlla la. yàlla moo ko dogale nii kenn mënu xëccu ak yàlla ñun ñëpp dañu ko war a ñaanal ñaanal ko ci semaine bu sell bi moom ne daal moom foofu la juddoo ci religion chrétienne jaaree ko tamit euh, mbokk mi dem ba demoon nañu foofu man ak sama ministère bi yëpp waxtaan ak ñoom jaar leen ci tur gouvernement bi premier ministre dem dafa na woo fekk ñu ngi toog ci biir salon moom mu ne ma tamit ma jottali ko jaare googu ci famille am yëpp parce que premier ministre xam na ko donc loolu yëpp euh, lu métti la diis la pour ñun mais lu gën am solo mooy ñu ko ñaanal yàlla xaruñ ko jana ci teewaayu ministre des sport ak sportif yu bari Augustin Senghor indi na seede. ci lu njëkk seede mbokk la parce que dañu bokk deret bokk euh, fi ñu bàyyee ko muy Joal Fadiouth donc ñëpp ràññee ko foofu mu nekk ku baax ku xarañ lépp loo jëm ci wàllu dëkkam du ko bàyyee ginnaaw donc loolu ñu koy rafetlu ñaareel bi tamit muy euh, sportif bi parce que ñi xam Paul bu baax xam na ne ñu football euh, footballeur axan la woon mënoon na football trop bi mu nekkee ndaw Euh, commencé ko ci dëkkam Joal Fadiouth Thiès bi mu fa nekkee comme élève ba bu muy ñëw Dakar euh, ñu bokk beneen mbir muy ne euh, football na suñu équipe bu nga xam ne mooy US Gorée donc ñetteel bi mu nekkoon haut fonctionnaire bu ñëpp ràññee ci cawarteem ci kattanam ci mën-mënam lépp taxoon na ba nga xam ne suñu ministre Faustin Diatta wóolu woon ko ñu soxloon ku ñëw jël en main stade Demba Diop ñu jox ko ko bu mu dooree mu commencé liggéey bu rafet. fédération yëpp euh, naw ko rafetlu ko euh, mu amoon tamit yéene bu rëy ci stade bi pour def ko loo xam ne euh, ñi yëngatu ci wàllu tàggat yaram yëpp fii Sénégal mën ko tiitaroo. Paul Ndong nag tey jii lañu koy jébbal boroomam ci Joal Fadiouth googu nga xam ni fa la juddoo mu nekkoon nit ku baax ku woyof ku dal ku amoon yéene nag ci stade Demba Diop bi nga xam ne ministre bi defoon na ko muy kilifa ga. waa RTS yëpp ñu ngi koy jaal ay mbokkam euh, waaye it ñu ngi koy jaal képp nga xam ngi yëngu ci wàllu euh, tàggat yaram mbokki li leen indoon ci ay xibaar doon nañu ko jot laata ñu tàggu ki jàngaleen fay foto ñu xam dañu réer ki leen njëkk wanale euh, mu ngi tudd Faty Bari ñu gën ko xam ci Euh, Fatou Koba dafa wéradi di mu ngi dëkkee ci Pikine Medina Gounass quartier Amadou Anne ñu yaa ngi képp ko gis ko jokkoo ak euh, Hamid Anne ci marché Tilène ci 77 646 07 28 wala 33 822 08 03 ki ci topp mu ngi tudd Khady Ndaw mu ngi dëkk ca kër Mbaye Fall euh, moom nag ñu ngi ñaan képp ko gis nga jokkoo ki mbokkam dafa wéradi si 77 655 07 08 wala nga ñëw fii ci RTS mbokk ñu leen gërëm di leen sant di leen ba ci bu jàmm Thank you.